waa mais ma ne euh, est-ce que amuloo frustration ci nga nekk un capitaine d'industrie di employé des Sénégalais. Mhm. et que l'État mosulaa mosulaa contacté mais et loolu devoir la. je suis très fier mosuñu laa mosuñu laa poussé. aujourd'hui euh, donc yow mosoo. liggéey ak État du Sénégal may mën a. si télévision laa nekk di wax je suis milliardaire si télévision laa toog di wax dama ne. je suis très fier man. laisse-moi finir reste je suis très fier. ma toog fii di ko wax. musuma am marché état Pape bul bàyyi ma ne ma ne musuma am marché état du Sénégal. et xam nga ni ma may mun a industrie ay millions defaru ko may mun a industrie ay millions defaru ko defaru ko man jotewuma ak état dara. yaa nga seetlu mosoo am ak ñoom liggéey jotewu ma ak ñoom dara mu man seen marché bugguma. ah bon bu ma koy doyee.